يفقه قولي إخوة الإيمان نحييكم جميعا بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جلدي سبيك خريتي فتبارك الله أمدي جامي سوبي بيري أك بيتي ñi yëg ak ñi nga ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax ci ajjuma ji di leen ndokkeel di ñaan yàlla yal na yàlla nangul ñu ziyaara defal ñu yiw yal na yàlla def jàmm ci biir réew mi fëgg bopp ñi nga xam ni ñoo wéradi yal yàlla dalal xel yi ñu ngi nuyu kilifa diine yi nag fa tabaarakallaahu ñi nga xam ni ñoo fi wuutu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa wax ni al ulama warasatul anbiya wa innama al anbiya lam yuwarrasu diima dinaaran wala dirhaman innama al ilma muni borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi ay borom xam-xam bu nekk ci yoon bi nag waxuma borom xam-xam boo xam ni boppam la fi nekkal muni ni yonent yi donnloowuñu boroom xam-xam moo tax ci ngay déggee warisa Suleymaan Daawud Suleymaan donn na baayam Daawud bi tabliixi nubuwati am ñu ni Suleymaan donn na baayam Daawud ci culture d'entendement mooy alfaham fa faham naaha Suleymaan ñuy ñaan nag fa tabaarakallaahu yàlla may ñu ñu dugg ci koor gi ak jàmm lépp lu doomu aadama di wut jàmm a ko dàq bu la am dara mais amal jàmm jàmm moo ñu jig fii ci àdduna te moo ñu jig ci àllaaxira alxuraan lépp jàmm la soo duggee àjjana sax plat boo mënti laaj jàmm nga ca biir plat ba avant muy ñëw daxwaahum fiha subhanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaam jàmm dugg na yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla da ko jox jàmm ba mu doy moo tax yàlla ñu yàlla defal jàmm fi daaray ni ci këru àdduna ak alaxira suñu bind tey nag dañ ko jëmale ci koor xam ngeen ni koor gi fa tabarakallahu ñëw na gan googu nga xam ni bu daan dem mag ñi dañ koy jooy ndeysaan buy ñëw mag ñi di ko teeru ak kontaante bi faraxin wa suruur gan googu nag mooy waaj a ñëwaat muy gan goo xam ni su ñëwee tilim tilim yi nekkoon suñu ruux da koy raxas ba mu set moo tax doomu aadama chaque année gan googu bu ñëwee bilan général lay def ci moom xool maladie yi nekkoon ci moom consulter ko faj ko ba mu wér su delluwaatee nag nga defaat lu la joxaat maladie yooyu moo tax médecin général la moom gan gi ñu ngi koy xaar di ko teeru su agsee rek dugal ñu foom ñu daan dugal fa tabaarakallaahu daal faj suñu jàngoro yi nga xam ni moo nekk ci ñun amraadul qulub feebaru xol yi alxasadu iñaan alxiche tricherie ah mbañeel siis nay rëy bon soxar yooyu yépp gan bu ñëwee koor gi dana ko dindiwaat su ñun ba mu set koor nag soo ko doon définir luxatan mooy al imsaak wa sharhan al imsaaku bi niyati taxabudi anil akli wa shurbi wa xichyaani nisa wa saairi l muftiraati min tuluxi l fajri ila xurubi shamsi mooy nga bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi lépp loo xam ni day yàq koor koor nag yaa ayyuha allazina amanu kutiba aleykum siyaam ci aaya boobu la ñuy taxawee tey faram fàcce ko ba mu leer xam nga doomu aadama bu duggee ci diine nit ki dafa am juróomi baat yu ñu ko sant mu wax ko shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah iqaami salaat ita is zakat sawm ramadan xoolal fa koor nekk xam nga yàlla dañu yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi bokk ci sama parti yàlla suy wax lu ko intéressé dëgg te mu concerné parti bi yaa ayyuhal lazina amanu la utiliser mu ne yaa ayyuhan naas concerné na képp jullit chrétien athée yaa ayyuhan naas moom foo ko déggee mooy képp koo xam ni nit nga ya ayyuhan naas ittaqullah ay yéen nit ñi ragal leen yàlla foofu yàlla yashmulul xaam ñëpp la dugal ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi bokk ci sama parti muy xisbullahi parti yàlla am nañu bokk ci parti bi te amuñu carte membre am nañu bokk ci parti bi te yor carte membre kon ki yor carte membre la yàlla di waxal yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi bokk ci xisbullaahi parti yàlla te yor carte de membre te réglement intérieur bi ngeen ko doon pratiquer ba ca njëkk ba ca njëkk mooy shahadatu an laa ilaha illallah boobu nga xam ni waxoon nga ko wa anna muhammadan rasulullah yaa ko waxoon muy premier article ci règlement intérieur bi iqaami salaat deuxième article bi ñëw respecté nga ko état zakat Nat azaka ñëw nekk troisième article ci règlement intérieur bi léegi nag foofu ma jaar ak yéen ba respecter un règlement intérieur bi ci article yu njëkk yi léegi nag sawmu ramadan day ñew légui nak kutiba aleykum siyaam farataalaat na ci yeen koor mu bokk ci règlement intérieur kama kutiba ala lazina min qablikum comme ni ma ko farataale woon ci ñu njëkk ña nga xam ni ñoo nekkoon ci sama partie bi parce que partie yàlla du dagg du arrêté mu continuité lay doon xeet bu ñëw bu demee beneen xeet ñëw xeetu yeneen ti yàlla euh, Muusa woor nañu xeetu yonent yàlla xiisa daan nañu woor daw daan na wóor bis du dog di di dog bis kon nag yéen boo leen ñëwee adhéré ci biir parti bi yor ay carte de membre devoir la yéen it ah pour ma testé seen nattu seen pas-pas xool fu mu toll moo tax ma tegle tegal leen koor kooku kama kutiba ala lazina min qablikum lakum tattaxuun legi parti bi mu ngi non koor gi nak yagul ay yaaman ay fan yu neew la 29 jours 30 jours ñi nek ci parti bi am nañu pas parce que yalla souvent day bay xel ñi nga xam dañu am ngant du rek ku nek ci parti bi am carte de membre da ngay wor par force am na ñu mënta wor am na ñoo xam ne assister réunion yi am na ñoo xam ne mënuñu fekk ensemble parce que ngant day am yalla ni am ko koo na carte bokku ci parti bi hizbullah mais am nga ngant gu tax mën to wo am na fenen fu may jaar ak mom muni faman kana minkum marida aw ala safarin fa xiddatun min ayamin ukhra ki nek ci bir parti yalla ngant dab ko ba to woor ngant dab ko ba mënta fekke réunion yi am na ngànt léegi nag moom li muy def mooy faxidatun min ayaamin uxar su mënta assister réunion yi baal nañ ko moment boobu mais nag na ko fay ci beneen bis mënul woor am na ngànt faxidatun min ayaamin uxar na préparé beneen bis nga gis loolu ni kiy tukki am na te tukki bi muy tukki ëpp na cent km jëm 89 foofu ñu la mayee nga wàññi julli noonu la lay mayee kasaale ka woor googu ni la doo ko woor mais nag préparé ko beneen bis sarax la bu la yàlla may dogal rek parce que yàlla xam na coono gi ne ci biir tukki almarid daldi di ñëw am na ngànt jigéen ji nga xam ni dafa ëmb nekk en état te li mu ëmb ragal na ni bu wooree mën na indi ay quelques complications ci biiram moom it kazaalika may nañ ko ngànt jigéen ji nàmpal ragal na ni su wooree mën na indi complication moom it kazalika may nañ ko ngànt mais ñoom ñaar dañuy lele parce que ngànt loolu doone rek damay toog duma ma woor mais da ngay lele génneel mudd jox ko miskin waxal allazina yutiquunahu fidyatun taxaamu miskin li kibarin yàlla nee na ki nekk ki nga xam ni dem na ba nekk mag soixante dix ans soixante quinze ans quatre vingt ans kooku ay appareil mënatul tenir corps kooku boo waree day dee yàlla ni kooku chaque jour na génne mudd joxe ko calculer mois bi yépp nga teg ko chaque jour nga génne ko loolu moo jaadu mais pourquoi yàlla sunu borom def loo ko loolu mënta wor mais mënul na koo teggil xoolal am na ñoo xam ni loolu la ñuy ndogo am na ñoo xam ni loolu la ñuy añe am na ñoo xam ni loolu la yaakaar moo tax yàllaa ngi bàyyi xel nit masaakini bu baax a baax a baax kon aaya baa ngi noonu règlement intérieur bi la yàlla teg ni nañ ko appliquer koor nag dafa nekk loo xam ni ci wàllu sante sax walu santé sax day fajj malade yu bari ci yow ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moni sumu tasihu wor len wér wor len gen wér amna malade yo xamni xam koor da koy fajj ba mu wér motax bo beure loy febar essayer rek ngay wor كور دا فاي ري غريزه جنسيه بي نيك تي دومو ادمه موي است انيمال يونتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا واخني من استطاع الباءه فليتزوج نينا فانه اعد للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان له وجا نينا كيب كو خامني mën naa takk soxna ci yéen na takk waaye mën a takk ba pare di taxawaal gars yi boo ne leen takk leen sax dañ naan la ma waroon a am maa ngi koy am kon lu tax may takk nga koy am ci fu xaraam ñu takk loola ngay takko loolu lu muy ndur caaxaan ngee bari rekk góor ñi takkatuñu jabar jigéen ñi mu tëtuñu jëkkër mbaraan gi daal lañu jël àpp àpp féetewoo ko wallahi lazim nee na ci biir dëkk bi soo ko doon wax àdduna day tëgg man mës naa toog dégg benn interview ci internet bi damaa toog rek di manipule sama téléphone dégg benn voix benn xale bu jigéen benn xale bu góor wax ni man la taxoon may sonn di takk kay maa ngi am kon jaratul ma ciy sonn su ma ko soxlaa dinaa ko am ci lu xaraam nga nar dund ci situation boobu bu xëy dee dem safara mais takkal pour mottali xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yeneen bi nee na ku mën a takk ci yéen takkal parce que dina tax nga sangewu dina la dimbali ba nga téye sa bopp mais problème bi Moussa am na ñoo xam ne dañuy am jabar mais ñoo gën a doy war ñëpp am na yoo xam ni takk jabar sax jaaduwul woon ci ñoom parce que takk ba pare di def li gën a garaaw ki amul jabar def loolu lan lay nduru rubba sahwatin saa awrasat xusnan tawila nee na gàcce bu gàtt matul sax sa bànneex boo xam ni boo ko dee calculer cinq minutes dix minutes la mu jural la njàqare àdduna ak àllaaxira ñëpp jéppi la internet yi di la waxtaanee réseaux sociaux yi di la waxtaanee adduna di la waxtaanee sa der yàqu abadan abadan dootoo jëkk adduna dootoo jëkk alaxira jigéen jaru ko mu ni ku mënta ku mënta takk ci yéen nag mën la lam yastatix fa alayhi bis saw mi képp koo xam ne nag mënul takk amul financièrement amul lu mu mën a takke condition yu réunir pour mu takk yonent bi sallallahu alayhi nee na del woor parce que koor googu dina rey lu bari ci sa wàllu instinct animal parce que boo waree doo tal leneen doo tal lekk doo tal naan doo tal sëy moo tax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax koor gi insha allahu taala la ca des bëreetul ñu tëjee ko xadis bii yonent bi ni assalawaatul xams wal jumra ila al jumra wa ramadan ila ramadan mukaffiraatu lima baynahunna ah inij init tunibatil kabair yonent bi sallallahu alayhi wa nee na juróomi julli yi ajjuma ba ajjuma weeru koor ba weeru koor mooy fomp bàkkaar yi nekk ci diggante boobu su fekkee bàkkaar yi gën mag moytu nañ ko kon nag fa tabaarakallaahu nañ ko moytu bu baax a baax a baax te teeru ko ci ragal yàlla teeru ko ci dal yonent bi neen man saama ramadana imaanan waxti saaban xafir lahu ma taqaddama min zanbihi am na ñu ci doole nag bu ma taaxaara képp koo xam ne woor nga weeru koor ànd ak gëm yàlla ah ànd ak moytuy tereem nee na ñu jéggal la li nga jiital ci sa bàkkaar am na ñu indi wa ma taaxaara nag waaye li nga jiital sa bàkkaar moo gën a moo gën a wér kon bokku jullit yi fa tabaarakallaahu lii lañ leen indiloon tey ci seen bind tey waxtaane wàllu koor ak waajtaay bi yal na yàlla may ñu dégg topp wa ma zalika alallaahi bi aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.